salaamaaleykum mbokku internet yi nga xam te ne yéen a safoo Hann TV amate ñu mbégte ak contentement bu rëy daal di ñëwati rek ci nu nu mel muy le grand magal de Touba 2020 ku ne xam na ni euh, màggal yi fi jot a jaar ak bu bi. umpale na euh, am na changement tuuti par rapport ak pandémie bi nga xam te ne moom moo xew partout dans le monde waaye tamit fii ci biir euh, réew mi ñu ngi doon sax laam-laamee que ni màggal dina am wala du am waaye koy sante rek borom bés bi di Ahmadou Bamba Serigne Touba euh, dañuy def lu dul rek daal di waxtaanee nu ñu mel waaye tamit bernde yi waaye dañoo ñëw fii nga xam ne moom moo di ci HLM Alieu seet ki nga xam ne moom moo di honorable député Mously Diakhaté moom la ñu seet fii ci biir këram ci daaram ju mag ji nga xam te ne moom la féete fii ci biir Touba dañuy def lu dul dem fekk ko ci biir waañ bi mu won ñu li nga xam te ne ne moom lay préparé màggal du Touba bi waaye tamit ak berna yi ma ànd ak sama caméraman ñu dem fekk ji ko ci waañ bi mu won ñu li nga xam te ni moom moo di berna yi ndax ku ne màggal Touba ne berne bismillahi rahmani rahimi ya rabbi najina minal seytaani wa jawratil jiraani wa sultaani wa kulli naafisin ala laquudi wa saalimin wa abidina suudi wa taarixin sel turooxin te di liili wa kulli talmisin wasil ba liili ayca maman ñu fekk la fii rek euh, ci euh, Touba ci kër gi comme niñ koy faral di waxee rek euh, saa su ne ku ne màggal Touba ne berne comme niñ ko defee ci bunt bi rek dañ lay bàyyi nga présenté ñu waañ bi ak berne yi naka lay demee waa asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte mu diis nag tey ngeen fekk ñu ñu am euh, ñaari mbégte ndax yàlla suñu borom moom mooy dogal lu ko neex ci jaamam fekk ñu suñu benn tànt génn àddina bi ci guddi moo tax xale yi sedd ni ñoom ñëpp jaxasoo waaye nag sant yàlla rek lañ koy def ndax bis bi day bis boo xamante ni euh, day bis bu màgg ci e, ci diine ndax euh, li gën a am solo mooy sant suñu borom kon nag eh, ki nga xamante ni may na la opportunité wu nga am bis boo xam ne bu ñëwee eh, di nga wàcce alxuraan di nga rendi ndax yàlla rendi ngir yàlla rek ndax sant ko ci xéewal mu la defal sant ko ndax mënoon na laa def mala sant ko ndax mënoon na laa def leneen mu def la doomu aadama kon bis boobu tey ki la ci boole da nga koy sant ba pare door a sant door koo sant le nag yàlla suñu borom ndax boole gim la ci boole màggalu tubaa nag ñun dañu koy def manière boo xamante ni c'est exceptionnel xëy na ak ñeneen ñi ndax ñun pour ñun jaamu yàlla la jaamu yàlla la moo tax euh, bu yegsee euh, liñ ci man lépp ak liñ ci mënul dinañ ko ci def dinañu dimbali aussi suñuy dëkkandoo yi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw tey ci bis bi lañu bokk te li gën a am solo mooy boo dee sant yàlla da nga koy sant won ko ci doomu aadam maam yi nga xamante ni moo leen sàkk te yamalewul te eh, nag bu ko neexoon mu def la ni ñoom ñàkk gam laa ñàkk a def ni ñoom nag tane ga nga leen tane rek ci sa alal lu mu bon bon nga jox leen ko bokk kook ñoom won leen ni yéen ci ngeen bokk yéen ko moom sax ndax ginnaaw ñun eh, sabab lu ga ñuy def ak eh, rendi ga ñuy def la ca des lépp doomu aadama yi rek lañ koy jox moo tax tubaar fa kàlla macha allah. xale yi ñu ngi ci waañ wi ah li ñu mën rek nag dañ koy def dañuy rey giléem dañuy rey nag dañuy rey xal ñun dañuy def ginaar dinañu def picc waaye dinañu def fruits de mer ndax dafa am loo xam ni moom mooy exception bi mooy julli gi mu julli ci géej gi ba sant suñu borom damay wax ni képp kuy santale Cheikh Ahmed bàmba bis bii di ko ci santale yàlla te boolewoo ci fur yu mer am na loo xamul ndax keroog ba muy julli ca biir géej ga ñu ca biir ña ca suufu géej ga rek a ko mën a seede moo tax euh, ñun daal lu nekk dinañ ci laal lépp nag ndax bégal jaami suñu borom yi lépp rek ndax bégal jaami suñu borom yi loolu rek lañ ci jublu ak jaamu yàlla rek lañ ci jublu bis la boo xam ne daal jaamu yàlla la ci ñun yoonu murit waaw waaye ñuy gis ni tamit euh, ndongo yi ñu ngi doon euh, wàcce kaamil ni def tamit lu am solo loolu ana lan lañ ko ci mën a wax laataa ñuy dem di xool soxna yi naka la ñuy préparé waañ bi. waaw euh, ndongo yi nag li nga ci li nga ci xamul sax ñooñu nga gis ñëpp ku ci sama mag jurul sama rakk ko jur ndax yàlla dafa def maam xaali jaxate mi sama mag dafa yor daara ju mag fii ci daara xuddoos baayam ak sama baay. ñoo bokk ndey ak baay sëñ Cheikh Jaxate ko jur Abdou Baaxe Jaxate ma jur ba pare mu wëlbatiku sëñ Abdoulaye Jaxate mu sëñ Amsatu jur waajuram mu jigéen euh, mu yor nag euh, daara ju mag te man ma taamu ci njàng mi mu sell euh, moo tax bu may jàngalu dama naan ko yónnee ma gone yi gën a mokkal ci ndax dañuy xarañ gone yi gën a mokkal ci daara ji tey deret tey mbokk deret waaw moo tax ñooñu nga gisoon ku ci dul sama doomi càmmiñ rek sama doomu sër nga ñoom ñooy daje fii jàng arxuraan suñ paree ñu defar laaxi nëtër yi door a jublu ci yeneen berne yu saf xorom yi waaw. kon noonu rek lañ koy defee dañuy ànd ak moom ndax euh, comme ni ñu koy faral di waxee rek saa su ne euh, màggal Tuuba benn rek la dañuy ànd ak euh, soxna Mously Diakhaté ayca ñu dem ci biir waañ bi ñu xool soxna yi naka la ñuy préparé li nga xam te ne moom moo di màggal Tuuba 2020. xarit lañu ñoom de Dakar la ñuy jóge waaye bu ñu ñëwee gis nga ñoom ñu ñëpp dakaar la ñuy jóge waaye bu ñu ñëwee du ñu génn waañu ba ñibbi jot di bernd rek bëgg lu neex gan ñi rek lépp nag mu jublu ci jaamu yàlla suñu boroom sant les borom bis bi yàlla suñu boroom waaw loolu daal mooy li nga xamante ni ci ci lañu nekk. Euh, waaw waaw nag bu ñu bu ñu bu ñu xëyee dañuy defar kafe euh, rek mhm. euh, teg kafe ku nekk kafe bi nga bëgg nu ko defee nga ubbiku ci naan ci après xale yi servi seen ñoom croissant ak beignet ak seen ñoom lu mhm. ci kanamee comme niñ ko defee nii ñu ñu wàcce kaamil lekk laax suñ lekkee laax ba ci kanam nag ci yi ñuy defar nii moom la day fekk mu pare ñu daal di koy teg euh, bu ay 18 heures jàpp 19 heures nag ñu def service service daal di sañse nag sant bis bi waaye tey moom xam naa ne sañse du xew ndax xale yi la ñoom ñëpp a jaxasoo ñoom démb bi ma leen nee yéen daal suba Hann TV fii ñëw lu ne la ñu def man li waaye nag li neex suñu borom waaw waaw ñun daal benn daal benn rek waaw <laughs> acca bu naama su baaxee rek euh, mën nañu yéeg ci kaw bu ko defee rek euh, ba tey moom la ñuy àndal tey journée bi yëpp tey moom moo ko moom moom la ñuy àndal ci euh, Magal Touba 2020 seen kiimaan ya kile defal xaw si seen xar baax ya kale yoroon tey bata booleeg Makka kile yoroon Touba Touba yoraale Mbàkke kale fi waaxu baxaw toolum sunna kile fi ñoo bayaatal ñi toolum sunna ci mbokku internet yi safoo en TV comme ni ñu ko euh, defee rek euh, sànq ba tey euh, cette fois ci nag dañoo toog ak ki nga xam te ne moom moo di honorable député Mously Diakhaté dañuy fas yéene rek waxtaan ak moom tuuti rek ci ay kàddu par rapport ak li nga xam te ne moom moo di. Euh, li nga xam ne moom moo di màggal Touba bi waaye tamit euh, li nga xam te ne moom moo di euh, mbas mi pandémie bi ndax ku ne xam na ni fi mu toll nii ñu doon laam-laamee que ni màggal gi dina am du am waaye dañuy sant rek ki nga xam te ne moom moo di Serigne Touba ma bàyyi ko rek ak kàddu gi. waaye waa anti yi ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte tey di leen dalal ci suñu daara <laughs> kër Cheikh Abdou Lahad di bis bu tedd bis bu sell ci ñun murit di bis bu ñu fonk lool tubaar fa kàlla macha allah ndax euh, bis la boo xamante ni suñu wasila suñu guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul moo doon sant yàlla tey ñaan ñu di ko ko santle saa yu bis bi delsee ci at mi kon nag euh, su ngeen ñëwee bokk kook ñun dinañ am mbégte lool euh, waxtaan ceeg yéen <laughs> waaye honorable euh, ginnaaw bi ñu àndeek ak yow rek euh, ci wàccee kaamin bi jóge fa dem ca waañ wa fi mu toll nii nag euh, ana lan nga ñu mën a wax par rapport ak màggal Touba 2020 bu ren ak bu daaw par rapport ak li nga xam te ne moom moo di pandémie bi Covid 19 bi. waa sant yàlla rek li ci yonent bi sallallahu alayhi wa xam nga ngëm dafa diis te dafa foor te affaire ngëm beneen affaire la. ndax euh, ñu bëree bari defe woon nañu ni yaakaaroon nañu xalaatoon nañu ni euh, màggal du am waaw waaye ñun murit yi musuñoo nattable ni euh, bu ñu màggalul woon woote ko Touba sax lay dàq ndax bu boobaa tëbaskiwaat dina am Sénégal ndax foop murit nekk ci biir réew mi di nga di nga daganal gàtt di nga rendi te di nga bernde bu boobaa nag tëbaskiwaat lay doon ci biir réew mi Euh, loolu nag euh, day wone rek ngëm-ngëm gi nga xamante ni ah ñun murit am nañ ko ci suñu wasila suñu guide religieux muy xaadimul Moustapha yaakaar yi murit yi tey ak ëllëg ku nekk sañ nga ko waaw kon nag euh, sant yàlla rek di ñaanal xalif général bi fi nekk muy sëñ mun Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér muy nit ku dal nit ku gëm yàlla nit koo xamante ni ba mu toogee dani dama jàng xam-xam ba am ko jàng sëriñ Tuubaa ba am lu ma ca xam dem jàngi àddina ndax ku dégg ni muy waxee rek nga xam ni diplomate la ndax tey bu ko neexoon daal ni woote rek màggal toog te bu boobaa état du sañ bañ a ñëw waaye pour won leen ni lii ngeen di xeex muy aar askan wi ci affaire corona bi maa ngi ci seen wet moo tax mu yombalal leen lépp. comme ni nga ko waxee léegi rek waaye euh, par rapport ak corona bi Covid 19 bi est-ce que yàqul nit ñi tuuti ci côté économique bi. économique bi bu réew mi ci réew mi ci àddina bi ah kay waaye ñun murit duñ ko yëg. ak yi euh, est est-ce que amoo leen ci woon jaaxle tuuti. Euh, ñun murit duñu ko yëg. Mm-hmm. moo tax man la ngëm dafa am dafa dafa dafa doy waar. man daaw dama rey nag rey giléem mm-hmm. naat seen ñoom ginaar ak yi ci biir géej mm-hmm. yàpp tubaar fakal la ndawal gi bari xale yi ni may yaay daal leen li yàq la tee ngaa def nag ak ñeenti xar ma ni ay ay ca ñu def nag def ñeenti xar ma toog ba ci yàgg ma ni ndax damay xaru man dinaa rey giléem daaw dem di dellu ginnaaw dem yónnee giléem ñun duñ ko yëg dañoo dañoo li ñuy nekk di ko def day lu lu dëggu ci ñun ndegem yàlla suñu borom ñi samp ay biteel ak i xàmbaki ak i pettaaw di ko jaamu daf leen cay fekk di leen defal lañ bëgg rawatina ki nga xamante ni leer na la ni yow liggéeyal nañ suñu borom ba mu fay ko ndax nangami million yi ruu ci àddina bi mu ñëpp mënuñoo bokk di fanatique ñëpp mënuñoo bokk di dof damay wax ni màggalu Tuubaa bu dul woon sant gi ñuy sant suñu boroom rek li ci monde bi di gagné dafa jar di ko def plus de 7 million de personnes dañuy bénéficier wu ci màggalu Tuubaa man sama taaw dafa jóge Amérique ni ma damay ñëw man ko ah yëf yi nag mun ma air màggal bi ci boppam duma ko du ko raté te air màggal boobu da doon feeste bi ñuy ñëw air màggal lañ ko def waaye ñaari place yu nekk kenn fa toog te charge yooyu nga xamante ni ki fi waroon a toog toogu fa ñoom ñi jël air màggal ñoo koy fay te étudiante la day jàng foofu la ngëm-ngëm toll xam nga kon américain ba ca Amérique italien ba ca italien ak français ba ca France fu mu nit ab fu doomu aadama nekk te sénégalais nekk fa am murit nekk fa yaa ngi bénéficié wu ci bisu màggal Tuubaa gi directement comme indirectement muy ñuy commerce ñi ñi ne ci muy ñëpp rek muy ñëpp rek plus de 7 million de personnes dañuy bénéficié wu ci loolu loolu amul sax amul sax màkka ci bu ñu jógee foofu rek euh, dañu bëgg nga wax ñu rek euh, sa diggante ak Serigne Touba. man nag loolu day sori damay wax sama diggante ak Cheikh Abdou Lahad doy na ndax man sama maam xaali ma du Matar mi ñuy wax xaali mu ndaw mu daan àttee Njàmbur ak Kajoor. moom tubaab yee ko defoon xaali te booba garaatub xaali doy na garaatub doomi soxna keroog ba mu jébbaloo ci sëriñ Bamba daa démissionné sëriñ Bamba ni ko loo ci jublu mu ni ko nit bu amee kilifa ke dootu ba am beneen kilifa lee tubaab baa ma ko joxoon dama ko koy delloo ndax dama laa jébbal sama bopp mun ko xanaa bu ma la defee xaal yi diiwaan lépp leer mu ni ko bàllaay sa mu ni ko kon nag demal nga jëlaat ko te continuer di àtte te xam ne di nga àtte fii di nga àtte fa ñu jëm kookoo jur Abdou Baaxe Jaxate mi ma jur waaye dama lay wax ni man li la man li ma Seex Abdou laxat dafa rek doy na gépp a ngi wër ndox tubaar fakkal la macha allah sama robinet bi day xelli deuxième étage ba suuf ba ci kaw ba ci suuf loolu lu ndaw de man xanaa xamoon ni député bu Seex Abdou Lahad la man man député bu Seex Abdou Lahad la duma député kenn dafa amoon liggéey bu samay waajur doon liggéey nekkoon di taxawu askan wi ca samay maam ba ci samay baay ba ci man man mission boobu laay ma laay yeggale te loolu lépp Seex Abdu te loolu lépp seexab Abdu bu ma dee wax ba Sénégal di ma diglu tubaar fa kàlla macha allah may ñaan yàlla musal ma ci fa làmmiñ lépp seexab Abdu man seexab Abdu Lahat laa bëgg ci sama biir xol ba duma waxantu man sama waxtaan sax mënut a neex ndax duma waxantu Seex Saaliw Mbàkke suñu jàmbaar ja bi mu nekkee xalifa dani liñ fi doon war a wax lépp Seex Abdu wax na ko liggéey rek a fi des man li ma Seex laxat Lahat defal duma ko wax kenn dama naan pat ak moom di ko dund ci sama biir xol di ñaan yàlla yokki leeram fii ngeen ma fekk sama kër gii ci Touba taawam bii Seex Sidi Mbàkke këram gi nekk nii moo ma may fii ma dëkk ay doomam rekk ma wër xaadim doomam a nekk nii soxna Fatim Sidee ne maam Fatim soxna Kiné nekk nii sëñ da ndakka ma nekk ca kanam moom këram a ngi nii pénc maa ngi jumaa jaa ngi xanaa xamoo ni pénc laa am Touba man loolu la ma seexam laa defal li ma li ma Cheikh laa defal su ma ko waxee cat dugg ma tubaab fa kal la macha allah xam nga bokk ci mbir ba pare kontaan ca ni ma la ko mën a misaale xam nga nit du tànn ay bokkam ak i dëkkandoom man ngay tàmmu dëkkan nit ba dem dëkk ca wetam mu tuxu mbaa mu bàyyi la fa yàlla mooy tànnal nit dëkkandoo ak i mbokk man nag damay wax ni fii nga xam ni fi laa bokk muy fii ci Cheikh Abdou Lahat ndax xaadimul Moustapha borom jaam yi ba mu jógee dugg mbaakool nag fekkoon nañu ñuy doomi alxuraan dama naan bu ma bu ma laajaatoon muy juddu fooy juddoo dama naan fii rek ba muy fukki yoon fii rek laay wax am ci mbégte lool am ci mbégte lool am ci mbégte lool kontaan ci lool leen ñaanal yàlla yokk seeni leer di ñaanal sama baay ba nag Abdul Baaxe Jaxate mi nga xam ni moo nekkaloon Sëriñ Abdou Lahad Tamba di ko fa représenté boobu ba juddoo ko ma ba 2000 la gaañu te jamonoy Cheikh Abdou Lahad ba ci jamonoy sëñ Saaliw kooku nag moo ñu nàmp laat moo nàmp nàmpatal nag ci Seex Abdu Lahat ñun Seex Abdu rek lañ xam ku nekk nag la la boole ci mbir foofa doy naa yem effectivement comme ni mu ko waxee rek waaye honorable député Mously Diakhaté euh, li ñuy tëjee ak yow euh, ci li nga xam te ni moo di waxtaan wi rek mooy euh, fu nekk nii mën nañ ni képp ku lay seet Sénégal fii la la mën a fekk Touba ana lan moo waral ni nu mel <laughs> waaw fi mu ne de moom tubaarkàlla macha allah dama gëm ni euh, boo amee benn carrière politique bi am na lu la ci war ci diggante ba nga cay nekk la la cay war mooy ñey ànd ak yow bëgg la ànd ak yow xëy na ndax sopp nañ la ànd ak yow ndax na ngay waxee neex na leen wala na ngay assurer neex na leen ñooñu dafa am lu la war ci ñoom mooy jéem leen a xëcc di leen wan ni fii laay teg sama tànk jéem a créer ay musli jaxate waaw parce que xale yi ay leader lañu dañ leen war a accompagner te nag bool kenn du ko ñedd ma gëm ni jigéen juy politique fii ci Sénégal boo amee cinquante cinq ans war ngaa préparer yow sa retraite politique retraite politique nag doo dem ba am cinquante cinq ans door koo préparer ci sa biir carrière politique ngay former ay Mously Diakhaté ba ëllëgee la nga fa jëmbatoon bu jebbee nit ñi man koo jariñoo te dama gëm ni jigéen bu dee politique bi am 60 ans waratu la def politique à la baase parce que am na doom ju ko mën a doon dama gis ni Sénégal politique bi léegi lu ci bëri amul éthique amul déontologie amul dara lu leen neex wax ci réseaux sociaux yi te nag ma jur ay kilifa tubaar fa kàlla macha allah sama jaari doom yu jëkk mag yëpp ku ci nekk yaa ngi def master xam nga kon ñoom seen cursus scolaire man aw ma ko seen niveau d'intellectuel gone yu ndaw yi nga war a toogal ci taabal yi réunion ak ñoom ñu naan la on se connaît kii kii amuñu ko te ñoom li ñu xam ci réseaux sociaux yi xamuñu ko parce que dañuy alerter musli foo nee tepp musli jaxate ci internet bi ñu jox leen ko ni leen seen yaay lii leen ci wax ñooñu nag boo bëggee sàmm sa digg ak ñoom sàmm sa crédibilité protéger leen da ngay teel a loolu moo waral fi mu nekkee danga ñëw Touba sax ci fi toog. man dama munta yegg dem ba ca kaw tubaar fa kàlla macha allah am ñetti mandat ca commune Hann bel ba nekk fa adjoint au maire ñaari mandat am ñetti mandat ca assemblée nationale jiite réseau bi ñuy wax population développement bu Sénégal nekk deuxième vice présidente forum Afrique 47 pays yi jiite Afrique population ak développement ma nekk seen vice présidente xeex ba dugal ca Sénégal xeex ba dugal ko ca bureau exécutif ba xeex ba nekk vice présidente ba nekk ci secrétaire éli ñeenti at wëlbatiku di xëccoo ak gone yu ndaw yi ay post élective man na maa jariñ sama askan leneen lu dul xëccoo ay post ci buñ ko soxlaa ndegam am naa ko defe naa ni foofu laa gise moo tax daal maa ngi fii ne sama sànceeb retraite <laughs> di liggéey sama këru retraite daal goo xam ni wax dëgg yàlla eh, xam naa ne ku ma soxla daal boo boo ma fi làmbee dañ ma fi <laughs> effectivement comme ni mu ko waxee rek euh, daan na ko noonu moom sax ni mu ko waxee noonu noonu la koy dundee fi fi mu nekk nii mu mel ni rek euh, daan na màggal gi ala ah, doome na ba noppi dañuy waxati rek jërëjëfee Serigne Touba bu baax baax léegi dañ lay bàyyi rek nga daal di euh, wax sa mot de la fin rek par rapport ak li nga xam te ne moo di màggal Touba bi ak tamit bii bi nga xam te ne moo di Hann TV waaw sant rek sant bu baax sant sama mbokk yi sant sama xarit yi sant sama càmmiñ yi nga xamante ni at mu nekk fii la ñuy màggale ci man di ñaanal yàlla soxna Awa Gaye sama tante jooju nga xam ne biig ci guddi la génn àddina yàlla yàlla yokki leeram yàlla ko yàlla gisale xaritam ba bëggul lu dul moom di sant ñëpp di ñaanal Cheikh Sidi Mbàkke yàlla fekku fanam te bàyyi kook wér ak njabootam gépp di ñaanal anti nag ndax damay wax ni ab dëkk soo fa faloo ñetti yoon mënatoo leen a fay dama am sama benn càmmiñ bu demoon Gàmbi ñu jox ko fa nationalité mu jàngale fa ñu jox ko fa imaam def ko fa ambassadeur et pourtant sénégalais la sénégalais la woon mu ni moom kenn munu tax ba mu ba Gàmbi ndax li ñu am ci taraanga lépp jox nañ ko ko waaye loolu mooy sama diggante ak Hann Hann TV euh, man Hann rek ci boppam rek lu bokk ci Hann rek sama kóllëre lay doon ndax dama faa am maam muy gay tàmba sama yaay nekk fa bu retraité ñun ñépp ñu màgge fa defe naa ni lu ñu am ci taraanga lépp jox nañ ma ko man it li ma man lépp danaa leen ko sant sot maa ngi sant waa Yaraax gépp di wax ne awma seen fay moo tax lu fa ne kundum rek ñu seen ma lu fa xew rek dañ may gis damay wax ni li may bàyyi bàyyi politique saa yu aan yëngutoo rek ma apporte sama expérience parce que yaakaar naa ni nag sama expérience bu bari foofa la doore kon maa ngi leen di sant bu baax di leen sant nag yéen ci seen professionnalisme parce que li ngeen def nii du lu yomb màggalu Touba lu metti la lu mettee liggéey la parce que dëkk bi xat na tàng na bari na ay jafe-jafe waaye lépp dangeen koy jànkoonteel pour teg liggéey bi ci yoon di leen ñaanal yàlla na nekk télé bu mag a mag a mag yàlla nañ leen dégg fépp tele yu mag yi ngeen di dégg bi ñuy am at yi ngeen di am ni kenn déggu leen woon kon li am solo mooy li ngeen di def ngeen sellal ko te teg ko ci professionnalisme xam nga lan mooy professionnalisme soo dee jël nit su juumee da ngay dagg juum ba sànni waaye doo ko def buzz gis nga liider boo def buzz pour pour pour pour ñu ñu ñu seetaan la wala ñu aimé la wala ñu vu la. boo lëgee doo ko am doo am moroomam parce que ay doomu aadama lañu léeg-léeg ngay wax ak nit juum benn juum bu ndaw mu exploité loolu di ci wut buzz ma ngay def lu garaaw bu mu leen dal na nit ñi jamais nañu abonné parce que presse en ligne bi seen ay doom lañu te yéen lañuy liggéeyal bu leen seetaan rek bàyyi da di seetaan ba pare aimé bu fekkee nga abonné baax na boo abonné wul woon aboneel ba pare j'aime parce que coûté wu dara te ñoom lu leen di jariñ lay doon wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu a ci bokk internet yi comme comme ni mu ko waxee rek euh, aimé leen euh, waaye tamit euh, bu leen fàtte tamit di abone gannaaw ba ñu àndeek moom rek ci journée bi waxtaan ak moom ci ni nu mel ci grand magal de Touba 2020 bi ak ni mu demee ak pandémie bi dañuy def lu dul rek di gën a sant rek Serigne Touba borom bés bi dañuy def lu dul ànd ak yéen rek ci magalu Touba bi ak lendemain bi aussi tamit bu ko defee rek ngeen am ay programme yoo xam te ne ne macha allah lu leen di neex rek ci loolu rek la ñuy dox ci kanam tuuti incha allah taala rabbi ak yeneen événement